bismillahi irrahmani irrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaqi bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim alxadiisu althani hmm. ah, wal ishruun ñaar fukkeelu xadiis ak ñaar hmm. nee abi abdillahi hmm. jëlee nañ ci baayi abdillah hmm. turam mooy jaabir bini abdillah doomi la tudd al ansaari bokk ci lansaar ñooñ madina ñi dalal yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. radiyallahu anhu yal na yàlla gërëm ko nee na anna rajulan mm. naka waay mm. saala laaj na nabiya yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. fa qaala mu ni ko mm. araayta ndax gis nga waaye te loo xam hmm. ci idaa sallaytu hmm. su su dem julli naa hmm. almaktubaati julli yiñ farataal ci man wa sumtu ma hoor ramadaana weeru koor wa ahlaltu ma daganal alxalaala lu dagan wa xaramtu ma xaraamal alxaraama lu xaraam hmm. walam azid te yokkuma ala dalika ci loolu shay an dara hmm. adxulul ay a adxulu ñaari alif la hmm, ñaari hamza la ñu xasaf genn ga adxulul jannata ndax danaa dugg aljanna qaala yonentu tontu ko sallallahu alayhi wa sallam hmm. naam waaw mm-hmm. naam tontuk laaj la mm-hmm. boo xam ne dafa mel ni mm-hmm. dafay baamtu la nga laaj maanaa naam tadxulul jannata hmm? imaam nawawi tekki ne wa maanaa xaramtul xaraama ay ijtanabtuhu wa maana axlaltu alxalaala faaltuhu muctaqidan xillahu mm-hmm, mu ne maanaam xaraamal naa lu mooy teet ko mm-hmm. daganal naa dagan mooy def naa ko fekk maa ngi fas ak daganam xadiisu mm-hmm. jaabir jaabir def na rek benn waaye laaj yonantu tuddul ndax solo si newut ci ki laaj mm-hmm. solo si mi ngi ci laaj laaj bi ak tontu gi yonentu tontu mm-hmm. araayta melow mm-hmm. laaj la waaye xabaare ma rek la bëgg a wax araayta xabaare ma ida sollaytul maktubaat su ma jullee julli juróom yi yàlla farataal ci man ak bépp jullit hmm. julli juróom yi julli suuk diggante ci subaar ak takkusaan ak timis fajar hmm. ma julli leen ni ma leen war a jullee hmm. maanaam julli leen ci waxtu te sàmm wanteeg seeni ponk seeni charte ni ko yàlla waxee inna salaata kaanat ala almuminina hmm. kitaaban mawquutan hmm. kon salaatu maktubatun ndax hmm. yàlla tuddee na ko yàlla nee na mawquut juróom yi yo war juróom yi duñ war lu sabab bu ko xàttee mel ni jullit néew wa sumtu ramadaana hmm. ma woor weeru koor mooy weer wi ñëpp xam hmm. siyaamu hmm. ci luxa mooy jàpp wëllis lumoo lumu loo jàpp wëllis ko rek woor nga ca maanaam loo absteniru rek woor nga ca moo tax yàlla waxoon sayidna eh, sayidatuna Maryam ba mu amee doom mu ne ko boo yeggee ku la laaj boo yeggee maanaam bu fa nekk di wax wax ju bari fa mm-hmm. quuli inni nazartu lirrahmani sawman mm-hmm. Mm-hmm. sawmu googu mm. firiwut woor mi ngi firi téye sa làmmiñ la ko firi mooy la ca topp fala nukallima al yawma insiyan bu dee ci sharia nag sawmu mm. mooy jàpp walis lépp luy dog koor mm-hmm. ndegam lekk la ndegam naan la ndegam jaxasoog mm-hmm. ñi ñaari way dencante la mm-hmm. li ko dalee fi fajar fenkee mm. ba fi jant di sooye mm. ma ndax loo rekk ay koor mm. déedéet dañuy def loolu taabudan lillahi azza wa jal taabudan lillahi jublu ca jaamu yàlla mu màgg mi muy firi bu ñu teewoon suñ bopp hmm. walis lekk walis naan ak yëpp yuy dog koor hmm. bi fajar fenkee ba bi bi di sox hmm. te jubluwuñ ca jaamu yàlla dañoo xiifal suñ bopp rekk wóoruñu moo danga gis ñoo xam ne danañuy woor ngir ne dañ ca jublu ko wér wooruñu mhm. ci process bu leen di joxug wér lañ nekk rek mhm. dëgg la woor dana joxe wér mhm. waaye suñu mbokk yi dul jullit danañ wax ci njëriñu woor ci wér gu yaram dem nañ sax ba génnee jàngat goo xam ne wane ne ne bokk na ci koor yi gën a jëriñ yaram ci wér mooy woor ñaari fan ci semaine bi ñu ne ñaari fan yooyu nag de préférence mm-hmm. lundi ak jeudi mm-hmm. xanaa dellus na ci li yonentu jàngale woon boobu mm-hmm. te yonentu moom sallallahu alayhi jaamu yàlla la ci jublu waaye it yàlla xamal na ko yeneen njëriñ yee ca nekk yooyu taxut ñu di ko def waaye ku woor bés yooyu am yooyu ñiy woor nag ñaari bés yooyu ngir amuk wér mm. wooruñu ci lislaam wonte sax ñoom tuddee nañ ko woor mm-hmm. kon taabudan lillahi mm-hmm. moo ko def koor mm. ki def grève de la faim mm. lekkut naanut it mm. lu eh, jamono yooya bëri bëri ñu ko mën a tuddee koor mm-hmm. ci zaahir woor waaye ci baatin yàlla taxut taabudan lillahi wa ahlaltul xalaala mooy ma def lu dagan mm-hmm. fekk maa ngi fas ak daganam mm-hmm. Mm-hmm. ndax daganal lu dagan walla def lu dagan am na ñaari maanaa mën naa def lu dagan maanaam ma daganal lu dagan laa bëgg a wax ne am na ñaari maanaa mhm. fas gi ma fas ne dagan na mhm. kooku maanaa la ci mhm. daganal lu dagan jëfe gi ma ko jëfee moom lu dagan loolu it maanaa la ci wa xalaala mooy ma jëfee ko wala wa xalaala mooy ma fas ko fas gi nga fas ne lekk ceebi jën dagan na jotewul ak lekk ceebi jën dara su ma ko fasee rek kon daganal naa lu dagan su ma ko jëfandikoo ngir ne dafa dagan mm. dagan daganal naa lu dagan mm-hmm. ma xaraamal lu mm. te e, maanaa teet ko mm. fas ne dafa xaraam ba pare teet ko mm-hmm. waye ngi nii naanul sàngara waaye duwul ne lim xaraamuta tax naanut ko mm-hmm. ah sàngara ko neexul rek mm-hmm. kooku ba gim ko ba mm-hmm. kenn du ko ca yool mm-hmm. waaye ki ko ba ngir ne dafa xaraam kooku ba gim ko ba jaamu yàlla la moo tax bàyyi lu xaraam teet ne eh, teet ko jublu ca euh, mana ngir ngir ne yàlla daf ko xaraamal hmm. waa nag bi mu laajee lii hmm. <clears throat> ne yonantu su ma defee yii hmm. maanaam bu defee li ma war ba liñ ma tere te yokk ma ci dara walam azid ala dhalika shay'an moo ndax danaa dugg aljanna yonantu ne ko ahan aljanna mooy kër gu kawe gu xewu googu yàlla préparel mm-hmm. xejjam yi mm-hmm. fala taalamu nafsum ma uxfiya lahum min qurrati ayun mm-hmm. nit mënta imaginer la ñu yàlla nëbbal la ñu yàlla dencal ci aljanna ci loolu dana sedd xol yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci qudsi ni aadatu li ibaadiya saalixiina hmm. préparel naa sama jaam ñu baax ñi hmm. maa laa aynun ra'at hmm. loo xam ne bët mosu koo gis wala udunun samiat nopp mosu koo dégg wala xatara ala qalbi basharin mosta tabbi ci xalaatab mbindeef mosta doomu aadama mm-hmm. moo yi yàlla di tudd mm. ci fakihatoog mm. ci naxloog mm. ci rummaan ak ci yàpp ci ndox ak lem euh, fruit ya nekk aljanna yëpp tur yi rekk ñoo niroog tur yii fii mm-hmm. waaye jëmm ya bokkuñu wa utu biha mutashabihan mm-hmm. niru na ci tur turi fii hmm. waaye dara daraay aljanna du àdduna hmm, hmm. daraay aljanna du daraay àdduna hadis ju gàtt la niñ xamee yonantu waaye làmbu njëriñ tàmbalee na laaju saxaaba yi ngir xër gu ñu xër ci mbaax waaye itamit formule laaj bi mm-hmm. moo lay wan objectifu saxaaba yi nim kawe mm-hmm. seen objectif mm. mooy ngërmande yàlla mm-hmm. ndax ngërmande yàlla mooy dugal nit aljanna moo tax mu laaj ko ne su ma defee yii mm. ndax danaa ci duggee aljanna mooy ndax yàlla dana ci kontaanee man dana ci kontaan ci man ba yóbbu ma Hmm. laajul alam alal ju bëri hmm. laajul doom yu bëri hmm. laajul àdduna ju neex laajul lenn waaye ma ngay laaj la gën a sell ci lu yàllay teralee jaam yi yowmal qiyaamati muy dëkkal leen ci kërug baaxam ga kërug jàmm ja muy daaru salaam yi kërug xéewal ga muy daaru naim yi sax ci yiwu ak ci xéewal ba muy daarul xaraar moo mhm. tax yàlla ne booy wut wutal mhm. këru àlaxira mhm. ndax fa la am wa inna daara al axirata la hiya al xayawaanu law kaanu yaalamuun kenn ci saxaaba wutal na yonentu sallallahu alayhi euh, lum jàppoo ko sotti yonentu di jàpp yonentu pare bëgg moom ne ko waxal ma wax ma loo bëgg ndax yonentu foog lu ne la koy laaj ndax kooku ci at du mag mm-hmm. wax ma loo bëgg mm-hmm. yonentu sa mu ne ko asaluka murafaqataka fil jannati mm-hmm. man de ànd man rek laa bëgg yonentu ne ko awa xeera zalik ndax bëgg leneen lu dul lool mu ne ko huwa zaat loolu rek laa bëgg yonentu nag ne ko fa ainni ala nafsika bi mm-hmm. kasrati sujuuti mm-hmm. kon nag dimbalee ma ci sa bopp mm. bëri sujoot te julli mm-hmm. mu delluwaat ara ayta ida sallaytu almaktubaat waaw waxul ko yonentu may ma xaalis may ma tool dara mm. waaye dëkkaa léegi yow ànd ak yow aljanna loolu rek laa bëgg hmm? Mm-hmm. yonentu wax na fii ne bu fekkee ne waaye mm. yem na ci julli juróom yi rek jullil geneen julli mm. dana dugg aljanna mm-hmm. ñu ne waaw mm. waaye am na ci borom xam-xam yu ñu ne ku bàyyi witr kooku nitu nitu ñaawteef la mm-hmm. jaaduwul sax ñu nangu shahaadatum ñu ko wax niñ ko jëlee ci imam ahmad ibnu hanbal ñu ne waaw loolu mën naa nekk hmm. waaye terewul nag mu nekk ci war a dugg aljanna ndax hmm. def na la ko waroon hmm. waaye witr képp kuy taxawee julli juróomi euh, doo mën a bàyyi witr gi nga xam ne yonentu sa alayhi wa sallam moo ne nañ ko tëjee suñ julli te witr la ci gën a néew mooy benn rakaat waaw ku sàggan nag ba bàyyi loolu kooku mën nañ laa tuumaal ne yaa ngi doye sunna mm-hmm. kuy doye sunna mm. kooku faasix la mm-hmm. te faasix mm. kenn du ko seedaloo mm-hmm. kenn du ko seedaloo li nga xam ne nag mm. <coughs> mooy iskaal ci xadis ci ñenn mooy li yonent bi sallallahu alayhi yem ci ñaar yi rek wala li waa yem ci ñaar yi hmm. muy julli juróom hmm. ak weeru koor hmm. tuddut asaka tuddut aj loolu nan lañ koy déggee nit mën naa wax ne xëy na booba yàlla farataalagut asaka farataalagut aj ñu ne ah, ndax asakam moom lañ jëkk farataal ci koor Seydina Abdoulaye Abbas danay wax ne ku yàlla waxee aqimu salaata ci alquran hmm. wa atu zakaata moo cay teg hmm. Hmm. nee na ñetti yëf duñ tàqalikoo fu yàlla waxee atiu llaha wa atiu rasul topp leen yàlla topp leen yonantu rek fu yàlla waxee wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan moo cay teg jaamu leen ma bu leen ma booleeg dara fonkal leen ma way jur waaye fu mu waxee julli leen hmm. nee joxe asaka moo cay hmm. Hmm? bu fekkee ne aj la nañu wax ne waaw aj moom mën naa am booba wàccagut maanaam nekkagut farata ndax aj dañu ko farataal ci juróom-ñeenteelu at mi ñii ne ci fukkeelu at mi li a wér mooy juróom-ñeenteelu at mi ci la yonantu sallallahu alayhi wa yobal Ababakar hmm. ak Seydina Ali hmm. Seydina Abubakar jiite aj ji hmm. Seydina Ali yu dab ko ngir war a jàng suratu tawbati ci euh, Makka ngir wane ne benn yéeféer dootut aj seeti gannaaw ren kenn dootul wërati néeg bi te fekk du jullit kenn dootul wërati néeg bi fekk solo la yëre ndax daan nañ fa aj fekk mm-hmm. daan nañu di def yaramu neen mm-hmm. loolu moo doon mission Seydina Ali mm-hmm. mu annoncé ko Seydina Abubakar jiite aj ci déwén nga nag la yonentu soog a aj moom ndax ci la jamono delluwaat ca nam waroon a mel ndax arab mm. dañ daan def lu ñuy wax na siiyu innama nasiyu mm. ziyaadatun fil kufri dañ daan jël yenn dat yi di leen yéexee mm. ngir ne bëgg nañoo xare te fekk ci ashurul xurum la hmm. ñu daal di leen ñu daal di toxal wala bëgg nañoo jàmm bëgg nañu jàmm ñu daal di jël ashurul xurum daal di leen toxal noonu ñu daan poussé bësina tax na calendrier bi jaxasoo woon hmm. waaye at mi yonentu aj ajee hmm. ci la wax ne ci la jamono delluwaat ci ni ko yàlla bindeewoon mm-hmm. ci la bésu arafa nekk dëgg dëgg bésu arafa mm-hmm. ci la bésu tabaski nekk dëgg dëgg bésu tabaski mm-hmm. bu dee kon bu dee aj la mm. donte imaam Shafii nee na euh, teel nañ ko euh, naka la tuddati mm, teel nañ ko wàccee teel nañ ko farataal mm. ndax waati atimul xajja wal umrata lillahi ñu ne atimul xuj xajjata kat wa atimul dañoo digle ñu matal ko mm-hmm. waaye digle wuñu ak tàmbaleem mm-hmm. dañoo ñu matal ko mm-hmm. waaye digle wuñu ak tàmbaleem digle ak tàmbaleem gi ma nga nekk ca atum juróom-ñeenteel ma ñii ne atum fukkeel ma kon aj mën na cee génn waaye bu dee azaka mm. nooy waxee loolu ñu ne ah bi xëy na dafa xam ne ki ko doon laaj hmm. amutoon alal hmm. waaye bu fekkoon ne ku am alala koy laaj hmm. dana ko wax ne ko danga nga war a joxe asaka te xam na ne su demee ba am alal dana joxe asaka ndax wax na ne wa xaramtul xaraama te bokk na ci xaraamal lu xaraam mooy bañ a ci joxe asaka mm-hmm. ndax ku terewoo joxe asaka kooku mm-hmm. xaraamalu lu xaraam ndax def na lu xaraam mm-hmm. Hmm? naka noonu tamit aj bu fekkee ne booba aj fekk na mu wàcc mm. yonent bi sallallahu alayhi naa mu xam ne kii amugut alal jum ajee ji wala waxaramtul xaraama mm. terewu aj dugg na ca ndax ki bàyyi aj te mën ko mm. kooku xaraamalu lu xaraam ki bàyyi aj te mën ko kooku xaraamalut mm-hmm. kon ñaari baat yooyu ahlaltul xalaal ak xaramtul xaraama mm-hmm. yóbbaale na yooyu yëpp mm-hmm. wala xaramtul xaraama sax moo leen yóbbaale soit yonentu sallallahu alayhi wasallam xam ne waa ji mën a gut ñaar xam na ne ñaar yi dugg ci xaramtul xaraama wax ci njëlbeen nga ne mm. tontu naam mm. baamtu laaj la mm-hmm. ndax a adxulul jannata mm. mu ne ko naam mooy naam tadxulul jannata mm-hmm. Mm-hmm. Mm. moo tax baat la bu gàtt mm. waaye bu làmbu la ñu ne bu waajoon walaay bu waxoon waaye ndax danga fase sa jabar mu ne naam fase ma tàbb na buñ doon may nit jabar ki koy may ne ko zawajtuka ibnati hmm. a qabilta hmm. mu ne naam hmm. kooku doy na ci ak nangu ndax naam dafa mel ni baamtu nañu laaj ba buñ ne sa kër gi da ko def waqfu lillahi wa rasulihi mu ne naam néeg ba nekk kër ga nekk na waqf ma naka noonu ci tontu yu bëree bëree bëri xaram wa xaramtu axlaltu alxalaala naka mu tuddati araayta xabaare ma yow yonantu sallallahu alayhi wa sallam ida sallaytu dem julli naa almaktubaati julli faratay wa sumtu ma woor ramadaana ramadan wa axlaltu ma daganal alxalaala lu dagan mooy ma fas ne lu dagan dagan na hmm. mbaa ma def ko fas ne lu dagan la hmm. wa xaramtu ma xaraamalal xaraama lu xaraam hmm. mooy ma teet ko ta fas ne dafa xaraam wala ma azid te del dolliwuma ala dalika ci loolu la shay an dara adxulul jannata moo ndax danaa dugaal janna qaala yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne ko naam waawaw rawaahu muslim xadis ji imam muslim a ko génnee mm-hmm. téere iman mm-hmm. baabu bayaanil iman mm-hmm. yàlla nañu yàlla boole si ñuy julli julli juróom woor weeru koor di daganal lu dagan te xaraamal lu xaraam hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin amin